waaw bay si waay ma waay maam Sidi màggal naka waar naka mu sama alhamdulilah lépp jàmm lay ziar ah, waay yaa ngi toog yow ah. Ah. xam ni déedéet kii kay bàyyi daa dugg si ntaan ki muy làq xaw ma hmm. nag moo ko dàq xaw ma ngelaw xaw ma nit bo da ngeen a xamante sàcc bu dul raw moom jël te yàqi nelaw kii man maa tax muy daw bi yow mi déedéet dama sonn ma ne naa toogagum fii noppalu tuuti yow waroo wax yow kan këf nga da ngeen a xamante moom warul wax xam nga tax yow démb ñëw ma moom moo tax ma àbb cent ah. ah yow mii lëf nga. kii kan kon. kii lëf la kii. Hmm. Saara. ah moom mii kon boobu ba ma déggee seeni wax yow la nëbbutu. man la ah man ko de cent mille dem Gàmbi. man ci laa nekk nii yow bàyyi ba léegi ci laa nekk nii de ci yoon laa nekk nii yow tamit. ah kon yow ki feebar kii moo. am na ki feebar. damay dem déggoo li ma loo ah, xanaa. waaw waaw bàyyi si. lu moo tax xale jigéen mën a fen. waaw. ba pare ba pare doon ay terroriste yéen mbaraane rek. yow yow tey ci kii tey ci kële tey ci kële. saaru jigéen ñi mel nii bàyyi bu ñu yàggee ci réew mi ñooy jur banditisme gi. ñoom ñii bu ñu yàggee ci réew mi ñooy jur waga waga yi. ñooy jur bandi yi ñooy jur waga yi. jàng leen ngeen wax dëgg. waaye jàng leen ngeen wax dëgg. man man bàyyi damaa nunu ku ñàkk fayda ba man jigéen war maa jël di man pamti pamtee. waaye ngeen doon salopard yéen. Eh, kenn gisoo fi kenn nag ku fi nekk salopard yow yaa ngi bëgg a ëppal sànq ba léegi ah. yaa ngi wax ma noppi. man damay sama lool te du mën a kii la ah. yow sa yoon. koy waxal yow boo ma waxee loo boo ma waxee boo ma waxee loo tax ma toj sa lu bon de boo ma waxee loo man man ngëj la de. bàyyi ko bàyyi bàyyi ko. firisi yoona man ak yow la teddu. Eh. ah yow nga ñëw ci atelier jàmbur nga wax bay ma ne ko. waaw nga pentir sa kanam la fi da ngay pent. bàyyi bàyyi may ma tuuti. wala ñu ngi pentir kanam. nangul li nangul lim ah, yor nangul lim yor. Eh. jox ma ni nangul dóoral mu naan nangul lim yow voilà. waaw. yow tu xam nga ma. nangul. na lépp génn na oor yi génn. yow yaa ka def. yaa ka bu ñu leen ci réew mi musiba mbab kuma dana am. lii lépp lekk te moomu la. coronavirus bi ñuy wax. yéen yéen ko gën a garaaw. xam nga bu fekkoon ni Sénégal góor ñëpp dañoo am fulla yii dafay jeex parce que gis nga genre yu mel nii moo tax nit mënatul bëgg nit. ba am ci moom comment ba nangul daal yi parce que li ma koy defal li ma cent mille ma ab mën naa ko yóbbu sama kër nangul daal yi naa ko def sama bopp nangul daal ma bàyyi loolu lépp jox ko mu ne ma dafa am yaayam moo feebar mi ngi nekk gambi lii daf koy jëli nangam sangam gis nga moo ba léegi ci laa nekk de yaa ma def wax la neex fenn ma fenn li ma ko mooy dëgg yow génn si moom na génn sama diggante man ak yow la na si génn ah, waaw dina daal yi bii mbaraane kaddu bu mag nangul daal yi xool ko cam peinture na fii bu xonq du ngeen rus sax fii bu ñuul sa xeesal bu mooy bii na nga summi na nga summi zipp bi. summi non suturaal non suturaal. bàyyi ko dafa war a summi gaa zipp bi. non non garaaw bàyyi ko acca la xamal benn affaire la yow tey comme que da ngaa fen wax na sa yaay def feebar da ngay dem demuloo ñëw di làq li gën a garaaw làq bi ngay def mooy ci mbedd mi ngay def ak tànku neen dërëm du ma doo ko yóbbu. acca demal dëgg waaye su ma génnee ci mbedd bi ak tànku neen yow dinaa la yóbbu ci yoon. dafa demal fu la neex yow génn si xoolal bu xoolal bàyyi ma waaye bu ma bàyyi ma demal fu la neex xoolal bu yow boo ma duuree demal fu la neex. jàllal sa ngay mel ni marimar nii su bi su mel ni zipp bi. ngay mel ni marimar nii belal daal jàll càqaj la zipp a xëcce zipp waaye yow ñu ñu ay saay-saay ay mbaam lañ kenn mënatu am confiance benn jigéen jigéen boo gis tey mu cap fii soo mu cap fële waaye nag waaye nag yooyu Bachir eh, tax eh, eh, hmm. boo mëntu sa bopp da nga siddaa Baye Siri boo mujj sa bopp da nga taan wala nga xurat wala nga ŋàccet wala nga ŋas. wax na dëgg yow bu bëgg jigéen. yow da nga bëgg jigéen. ku lee Baye Siri roo kaf ku lee nga jël ko roof ci sa kaf kii Baye Siri moytul sa bopp sa kaf kii nga jël jigéen ju ne nga roofal ko da nga da nga feebar de. Baye baal fu ne nga bëgg faa roof bàyyi loo koo gis ànd jigéen nga yaakaar dafay nekk ci lu ko neex. bàyyi fu jël nga bëgg faa roof moom yooyu yëpp ngay xalaat. li ngay xalaat la laa xalaat xam naa la xam naa la doo doyal jigéen xam naa la baax